mooy sunu juróom-ñaar fukkeelu ajjuma ak juróom-ñaar ci calendrier bi waaye tey nag ci juma ji sëriñ Touba Lo ca Côte d'Ivoire Yamoussoukro moo jaayante añu jumaay Touba Serigne Touba mii nag jëfam ji jiitu woon na bisu tey bii kon sëriñ Touba Lo ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ñaan yàlla suñu boroom Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaka yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ngeen baal ñu àq alhamdulillah